À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye et Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone xam ni moom moo xew ci diggante ñaari magistrat ji këru ko yenn que ñi liggéey ci wàllu yoon ñu ni loola la nga xam ni moom moo xew ci diggante ñaari magistrat yooyu ah, ba ñuy ah, jokkalante ay lettre rek keneen di wax sa moroom ah, yeneen i kàddu nee na loolu war na tax rek kii di procureur autosaisiru ngir lijjanti lu ni mel mu di ab communiqué boo xam ne ni waa forum civil géek ne nañ ko niki tey ji magaluk Touba maa ngi leen ko doon wax sànq niki tey amal CRD euh, di ab comité régional de développement ngir waxtaane ko waajtaaya loolu nag gannaaw bañ ca génnee ka nga xam ni moom moo yore kaddu xalif général des mourides di Serigne Bassirou Mbacké euh, la mu xamle rek euh, moom moo di képp kuy maggal si rek faaw nga takk masque mu ni loola daal nekk na loo xam ni nii boo murit bu nekk def ko pas-pasam ci wàllu woowu nag li tax ñu wax ko moom mooy bañ li di jàngoroy coronavirus daal di law foofa ci wàllu woowu sax ki nga xam ni moom la ñu dénk lu jëm ci waa kër docteur foofa ca région ba di médecin chef bu région docteur mamadu Dieng nee na lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay poste de santé daañu ko fa taxawal ngir xeex lu ni mel ba jàngoro ji bañ a law ci jamonoy màggal gi dañu koy dégloog Babacar Diouf. dañ gis ne jafe-jafe yu bëri ñu am li ci ëpp yeete moo koy saafara ndax dañu gis ne jafe-jafe yooyu bokk na ci ñi nga xam ne dañuy weddi ne feebar bi am na ba nga xam ne duñ jël benn matuwaay même masque yi ñuy wax duñ ko am ñoo xam ne sax dañuy dem ba ci soo leen bëggee defal test ñu bañ donte sax dañuy am màndargay feebar bi am ci ñoo xam ne itam dañuy euh, euh, bañ mesure barrière yi maanaam mesure yi nga xam ne mooy tëralin yi nga xam ne ku ci jaar mën nañ njortu ne mën nga mucc ci feebar bi yooyu ñoom dañ koy bañ kon ñun défi bi fii ñu toll mooy ñu détecté cas yi ñu fexe di teel a gis ñi feebar pour mën leen taxaw waaw poste avancé yi comme ni ñu ko daan defee dinañ def ay post avancé ci quartier yi ay poste yu doy ndax quartier yëpp nañ fa def ay post te ren jii nag dinañ ko gën a organiser pour que poste avancé yooyu bañ a doon ay béréb yoo xam ne nit ñi dañ fay daje di fa yàgg wala di fa buuxante ci kaw loolu dinañ gën a organiser post avancé yi indi fa personnel bu doy ci post bu ci nekk ba nga xam ne nit ñi duñ fa yàgg te duñ fa buuxante loolu moom ñu ngi koy waxtaan ak suñuy naataangoo ambulance yi ak yooyu yëpp dina ñëw xam naa teel na ñu wax ci loolu mais xam leen ne matuwaay yi ñu war a jël yëpp ñu ngi ci di ko sàkku ci ministère ak ci suñuy partenaires. mu nekkoon docteur Mamadou Dieng mi nga xam ni moom mooy médecin chef de région bu euh, Diourbel.